arène bi ñoo ko moom euh, am na ñu bëgg université nañ leen tabaxal université am na ñu bëgg école nañ leen tabaxal école am na ñu bëgg arène tabaxal nañ leen arène ñu fexe ba sàmm seen arène nañu fexe ba duñ fi indi violence nañu fexe ba wane ne seen infrastructure la ñoo ko moom ñu sàmm ko bu combat amee ñu ñëw ak jàmm civilisé comme li xew ci yeneen dëkk yu développé yi ci yeneen dëkk yu civilisé yi Sénégal ñu civilisé si fi nekk Sénégal mbër yi dañoo civilisé amateurs yi dañoo civilisé kon nañu wane ne fi ñu leen di xaare buñ leen fa fekk buñ la jiiñ dëmm fekk la ngay seetee yeelu yeelu lii nañu wan yéen axlu làmb yàlla waxal wane leen ne seen yëf yéen a ko moom da ngeen koy sàmm footballeurs yi ñoo ngi sàmm seen yëf basketteurs yi ñoo ngi sàmm seen yëf président Abdoulaye Wade indi na leen lii président Macky Sall yeggale na ko ma dikkee nañ ko tuddee nitu jàmm la man maay seen maire nitu jàmm laa donc nañ ko def ci jàmm mu commencé ci jàmm tas ci jàmm ku nekk ñi bi fekk sa kër jàmm